asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 29 mars 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la xëy commencé ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw woon ñu ñaari mbër yoo xam ne ku ci nekk daal la nga moom jaan lañ ko mën a tudde wala yeew wala ñàngur waaye la nga ràngoo doy na waar lool lool lool muy ñaari mbër yoo xam ne day kenn ki Lac de Guiers la ñu koy wax ka ca des di Ama Baldé sunu lamb xëy tey wan ñu leen Ama nag dafa mel ni fi mu nekk nii day li leer ba leer daal la mu bëgg daal ba tey mu nga ca rek mooy bëre ak Lac de Guiers numéro 2 moom daal jàpp na ne ci ay potentiel adversaire am ca la bokk ñam fi bàyyi daal waxati na ko mooy pikin waaye ak waa kër Double Less waaye bu dul ñooñu moom jàpp nañ ne daal wala daal keneen ku mu doon di takk ngemb ci làmb ji ama day sëgg bëre ak yow sunu làmb tey xëy tey wax ñu ko ñoom nag la ñu ràngoo daw na yaram lool wala boog mu raglu comme ni ko olof yi di waxe ñii moom seenu yaram dafa tàng muy promoteur yi li sason bi di gën a xëcc rek yaram yi di gën a tàng rek lool sunu làmb xëy tey wax nu ko yu njëkkee mooy Fallou njaay borom njaay pro moom daal la mu def moom fàllu njaay ab komba bu rëy rëy la taxawal dox ci diggante Jokkel bu Fatick nekk fële ca Kër moo di lamsaar sunu lamb xëy tey wax nu ko leneen loo xam ne gis nañ ko ci yëglikaay bi mooy beneen combat koo xam ne moom itam yaram wa tàng na bay xesen ba yegg ci lool muy Assane Ndiaye borom Baol production Assane tamit la mu xëy def lenn la combat boo xam ne daal bu neex a neex la xëy taxawal moom itam muy double moteur bu rëbës borom Rosa ak fëgala bi nga xam ne moo nekk ca lamsaar loolu daal moom la promoteur yi xëy tey joxati ko gars yi ak ndékki muy ay combat yoo xam ne day yu doy a doy waar la waaye itam jàppal ne ay combat yu nar neex la ñii moom seen i combat wala seenu yegsi na ba pare muy kii nga xam ne mooy alin Seye Junior ak mbay Guy gi dimanche ci arène nationale zal ba nag mu ngay wax ca combat alin Seye Junior ak mbay Guy gi ne na première attaque bi day bu décisif lu ne mën na cee feeñ wala lu ne mën na caa am ki nga xam ne tamit moo di ab maam lees di ab coach su moom te jara de lay wax ak maam yaa ñoom tamit day dimanche la ñu war a bëri ca stadium Iba Mar Diop sëñ Modou Ñaafo Jaar moom itam wàllum physique ba daal dafa ñëw di ca wax moom mii nga xam ne nii moom moo di maam lees di ab entraîneur rek nekk fële nga xam ne nii day moom mooy ca parcelle keneen koo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii ne seenam combat le 28 avril lañ ko lancé wala ci la war a am moo tax nag sunu làmb ñëw ne Garga ak Moussa Ndoye de fi mu nekk nii nag li leer ba leer compta rebours ba moom lancé nañu ko daa mel ni ki mbir ma moom léegi mu war a commencé saf neex ndax nag léegi am nañu date te loola moom leer na nañ kii moom dañu koo daan moom moo tax mu xëy ñëw di wax la nga xam ne nii moo waral defet ba muy muy kii nga xam ne moo di moo di bodi sunu làmb xëy tey ñëw ci moom leneen loo xam ne dañ cay dem wala beneenub yëglekaay muy Leewtoo point net fan yi passé yéen a fi doon dégg ne Rock Énergie manager yi dañ leen a boycotté ne daal seeni mbër du ñu dootuñu leen jël ñuy bëre ba tax mbër ya génnoon di ko coow lu nañu wax ko daa mel ni nag coow la tàbbiwul ci noppi ku tëx ndax nag ñi nga xam ne nii day ay dirigeant lañ ci làmb rawatina ka yore làmb ji nag di docteur Alioune Sarr moo xam du jaan jekko la Amadou Mbaye ak kii nga xam ne mooy Pa Abdou Fall ba ca ki nga xam ne nii mooy Cheikh Sow ma jiite rok anasi day waa Leewtoo point ñu ngi ñuy xamal ne àllarba ji nu génn day daje nañu dajab secret boo xam ne ca bureau Amadou Mbaye day tàngoon na jër ndax nag wax nañu menacé wax yu leer nañ lañ leen xamal daal mooy leer ba leer bu ñu fi ne di santas doomi jàmbur yi nañu leen bàyyi ñu bëre kii nga xam ne mooy biram ñing ménalité la licence la yor te CNG ko ko jox docteur Alioune nag nee na leen li leer ba leer day bu ngeen leen bàyyiwul ñu bëre li ma xam mooy des na leen yóbbu fi nga xam ne mooy commission de discipline te buñ ca yeggee lu ne mën na leen ca fekk yéen menaces yi buñ ko waxee nag mooy kuréel ba nga xam ne moom la Basiru Baabu jiite Leewtoo point net moo xëy tey ko wax muy loo xam ne daal ah fi mu nekk nii Alioune Sarr daa mel ni nag jël na ay ndogalam la mu nar daal mooy bu ñu wàccut xale roog ONES ñu bëre wala benn écrit bu mel ni ñoom moom li leer ba leer ménages yi lu ñu gis rek nañu xam ne ñoom la deneen loo xam ne tamit mën nañ caa ñëw mooy kii nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg rëg-rëg sunu lam ne na li leer ba leer ginnaaw dimanche di nu génn ba mu ñëwee tas fële nga xam ne nii moo doon Iba Mar jël lañ fa tegoon ñaareelu lu génnam Toubacouta la rëg-rëg daal moo fa dem jàpp mbër ya fa newoon daan leen jëlati la fa ne mu mel ni ki rek Talla Ndiaye la ma doon wax rëg-rëg ñëw na rëg-rëg yegsi na rëg-rëg ñëwati na rëg ñëw na de taala rëg-rëg yegg seeti na de li leer ba leer day daa mel ni lambi simple ji bu ko rëg-rëg moomu ditam day am na ci doole lool lool lool lool macha allah laf cat ana ñoom booy fay ñoom fara ak ñoom ngel jon ak kii nga xam ne mooy seex Tidiane ña Serigne Ndiaye numéro 2 Coriace yee gars yi rëg-rëg ñëw na garambañik rëg-rëg ñëw na la sant Babacar ngay ànd Babacar ngay àndaloon ci euh, revue de l'arène yi ñëw ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa lay fay Ndeye Kumba ah, di la nuyu di la ziar tey si ajuma ji xam nga macha allah série dari borom vax bu nice bi bëgg naa la di bëgg ñi nga xam ne ñu ngi ñu rek fu ñu mën a si àddina bi rek waaw di la nuyu bu baax a baax di kontaan ci ñu ñëw ak euh, sunu mbokk internet yi si jàngatu arène bi euh, ñu ñëw ak euh, ñoom ak si suñu lam sunu lam tey mi ngi titré à la une Ama Baldé Ama Baldé dafa mel ni léegi prenne pour bële ak ak la de waaw loolu de yàgg nañ koy wax moom ci ay waxam yaakaar naa daaw mësuñu dégg fu mu wax ne du du bëreeg Lac mais nag na ay kilifaam ñoo ko bañun commencé aussi papaam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ba ci magam waa Kër Les wala fi kenn kon moom Ama dafa mel ni la mu nekkoon rek ca ba tey loolu nag li koy wane mooy xëy na comme li ñuy wax ne Ama dafa manqué adversaire si làmb parce boo génne waa Pikine génne Géejawaay parce que géejawaay lees ak euh, kële ñu koy day gën a nekk lu nga xam ne ci moom dina ko mën a da boo ci nekkee nday kumba wàññi ñu maanaam ni du ko si yàq xëy na man bu ma déggee waxam daal ci côté boobu laa ko mën a déggee quoi bu fekkente ne moom ba tey mu ngi maintenir ne dafa bëgg a bëri ak Lac de Guiers 2 wala war a bëri Babacar est-ce que combat boobu dina yomb parce que ku si mel ni magam Jules Balde neewoon a tànk mi ngi dund combat boobu du am. waaw parce que Jules moom nee loolu moom jërul sax di wax ndax man mii toog nañu seq waxtaan ci micro mu wax ko nee na loolu jërul wax fekk boobu jamono Abdou Bakhoum moo génnoon wax ci combat bi Jules Balde daal di tontu. la mu tontu woon nag mooy loolu bu ko kenn xalaat ndax du lu mën a ne te du ne fekk mu ngi dund du ne ah kon nag ama itam bu fekkente ne comme ni ñu koy waxee Zil nekk tey di magam di taxaw taxawu baayam est-ce que ama loolu mu bëgg mën na koo bëgg waaye est-ce que bu fekkee wéy na ndigalu kilifa est-ce que loolu dina mën a ma nag am na droit nit ki nag euh, am na droit ne lii laa bëgg waaye bu fekkee ne dafa wéy ci ndigalu kilifteef moom yaakaaruma ne loolu dina mën a sotti ñu des toujours si sunu lam bi ñuy yëgal ne euh, aussi Fallou Ndiaye taxawal na euh, fëggala ak double moteur boobu Assane la Fallou Ndiaye moo taxawal Jokkel bu Fatick ak Maama Lamine bu Lamsar loolu la Fallou Ndiaye def mooy li a wax sànq rek dafa mel ni promoteur yi moom saison bi lu muy gën a dem seen yaram di gën a tàng quoi parce que tamit vraiment Maama Lamine bu Lamsar ak Jokkel bu Fatick bu neex a neex ndax Jokkel Lamsar la mujjee fëgg la daan ko Maama Lamine gis nga ko moom itam ndam yi mu teglante defe naa su jumul mu nga gëj a daanoo ca digganteem ak kéwél bu Bawol kon Fallou Ndiaye vraiment indi na combat bu neex moom tamit loolu nag bu ñu ci jógee Assane itam moo indi boobu nga la wax léegi muy du double moteur non double moteur fëgg la loolu Bawol production moo ko indi voilà loolu tamit nekk combat bu neex Assane démb wax na ma ne taxawal na boobu combat tey ñu gis ko muy lu nga xam ne nii tamit nit ñu ngi ko doon xaar ndax comme li ñuy wax rek làmb mayante chance da cee am tey double moteur ak la bu ñu nee seen combat taxaw na bu fekkee dañu dem si cadre làmb si sport bi double moteur fëgg la moo ko may chance ngir mën a bëre ak moom loolu nag mooy garab ci kaw lay fekkante combat bu logique la Double Moteur xale la mu ngi ci lancé benn defet la amagu fëgal tamit nekk na mbër moo xam ne nekkul ko nga xam da nga naan mag mu bàyyi xale yàlla la te nekkul magum kenn ndax kuy entraîné yor licence am apte moom bu ñu leen boolee jàppar ne adversaire de taille nga am kon daal encore une fois muy fàllu muy asan yeneen promoteurs yi des yëpp ku ci ne daal li nga mébét yàlla na yàlla def nga dim nga motli kook jàmm daal que nu ñëw si euh, Leewtoo point net mi ngi xamal ni mercredi passé amoon na réunion secrète bu amoon foofu noonu si bureau Amadou Mbaye président des amateurs de lutte authentique réunion boobu nag président Alioune Sarr mi ngi si woon Cheikh Sow président Rock Énergie ku si mel ni promoteur Pa Abdou Fall du Dieng Jekko aussi euh, euh, président des amateurs ni ngi woon daal pour une solution si nga li nga xam ni moom la manager yi tekk waa Rock Énergie maanaam embargo ne seen ay mbër ñu bëre tant que Birame ngi mi ngi nekk manager Modou Lo waaw loolu day su amee dañ naan parce que li am solo daal mooy man ci sama xalaat man Babacar li may wax man laa ngaa ki nga xam ne nii CNC tey ministère ministère de sports ñoo leen fi teg ci décret ñu jiite lamb ji di ko doxal daal Alioune Sarr ñu nommé ko comme président ay règlement am fi bara ngee nekk promoteur day am looy nooy taxawee ak looy looy indi ñu ñu ñu nangu loolu jox la licence nga nekk promoteur bala ngay nekk mbër day am looy dajale kayit yu ñu lay laaj nga ñëw indi ko ñu jox la kayit ne la mbër nga nga am licence bala ngay nekk tamit manager même chose su ma jumul promoteur bi mbër mi manager bi ñii la CNG reconnaître kon nag menace bi nga xam ne moom tamit dem na ut licence am ñu laaj ko lañ koy laaj au niveau du CNG mu ñëw joxe ko ñu jox ko kayit bu koy wane ne yow menace nga mën nga engagé mbër est-ce que kooku bu fekkente ne loolu am na ba pare ndax dañ ko naan boo bokkul ci kuréel bële yow léegi jiite nag say mbër du ñu bëre man Babacar loolu sama xel dese na koo nangu xaw ma nag ñoom ñi koy def ci ban logique lañ ko teg suñu ko waxee nag mooy kuréel am tàqalikoo am ñu tàqalikoo assise yor ko loolu tamit yàggul ñu mujj tàqalikoo am tey ñu xëyaat biram yor ko ñu ne biram bu fekkee ne mu ngi ko continuer yor ñoom dañuy ambargo ak énergie Alioune Sarr itam bu xëyee jël ci ay décision moom mi nga xam moo jiite làmb ji nag ne loolu dina dakk ci nii wala ci ne wala bu dakkul ñu yóbbu leen conseil de discipline ñoom ñoom mënaat say ah loolu nag kilifa gee wax nag te man dama yaakaar ne amul lu fi jar ambargo reconnaître nañ jàpp biram ñu ngi war na mën a nekk manager Modou Lo bu fekkente ne remplir na kayit yi koy may ñu jox ko licence buy tax mu mën a engagé Modou Lo te yaakaar naa loolu am na ndax combat bi mu war a bëri ni su ma moom moo ko engagé moom biram kon nag liñ leen di wax daal mooy que ni nañu waxtaane affaire yi rafetal ko teg ko ci aw yoon ku ñu jox kayit buy wane na yow manager nga ñu bàyyi la ànd ak yow liggéey affaire bi jëm kanam mais nag bu fekkee dañ fi bëgg a nekk indi ay tiraillement soo bokkul fi doo def li soo bokkul fi doo def li bay nar a lor ay mbër yu ndaw vraiment loolu yaakaar naa du gën kon Alioune tamit bu fekkente ne taxaw na taxawaay boobu euh, moom mu tëgg leen waa CNC wax lool kon yaakaar naa mbir moom solution dina si am moom am nañu yaakaar solution na si am Babacar nu jeexalee ak lutte simple rërëg bu mu tojee Adrien Senghor dimanche dafa dem euh, Toubacouta euh, tegoon fa 500000 moom la gagné waaw rëg-rëg day li may wax rek des fois da ngay wax si moom sax nit mën na la dégg yaakaar da nga far moom mais ñun dépassé nañ fu ñuy fare mbër nday kumba li am mooy nit ki bu nekkee si benn aar di ko def te mu jaral ko lu ne mu cay wane boppam olof nag dañ ne boo gisee nen foog nga ne nen a ngi nii doo gis jantu une heure ci bëccëg di ko jaawaleeg weeru mil wi ci guddi du ñu benn sax parce que bokkuñu lu ñuy saf rëg-rëg ci làmb simple tey actuellement li mu ciy def gisuñu mbër mu koy def parce que mag ñi dañ leen di déglu te ñoom ca la ñu wax ca mbër yu mag ya wala mbër yu jëkk yi ba tey ni mu def ci làmbu simple li mu ci def gisu ñu mbër bu ko def loolu nag su amee vraiment du ñu mën a def lu dul booy wax ci moom nga wax li nga xam ne moom la def moo tax ba nga xam ne daal ah comme li ma wax léegi rek ñëwaat na te bi mu ñëwaat itam wane na boppam ndax premier tournoi am Adrien Senghor yaa fa demoon yaag biram dimanche passé da koo jël te ay mbër yu mag yëpp parce que ñoo foon fa woon mu demaat Toubacouta démb wala démb jël lañ fa tegoon loolu nag li koy waral mooy moom li muy def bëgg na ko rëg-rëg li muy def jaral na ko ci entraînement ci ñaanlu ci ànd ak ñi mu war a àndal lool nag su ko mën regroupé nday kumba pour mu nekk un champion dana yomb trop trop ci moom gis nañ tamit yeneen xale yoo xam ne ñu ngi doxale noonu parce que mbër bu mel ni Grand Mbagnick ku jar a bàyyi xel la général Malick ci ci tracé boobu la ne actuellement tournoi yi mu bu dee 10 la na sept yi ñoom ngel ñoom booy fay caaka mais nag rëg-rëg vraiment daal te bëri naa la ci wax leen de jàpp ko mbër bi nga xam ne tout le temps mooy dirisi bu bëri fukki mbër dina daan juróom-ñeent yëpp bu ci am defet kenn ko ciy daan te kooku da koy bett parce que rëg-rëg combat bu arbitre soufflé boo xoolee li ma wax jàngat ko mooy dirisé bëre nag taamu nañ ci dirisé àddina sax jéem a bokk ci ñuy dirisé moo gën a wóor croiser les bras wala xaar ñu ne defal ni ngay doog a def yooyu dafa desee wóor loolu am na solo si kàddu yooyu leen di tàggoo di jox dig daje suba incha allah balaa boobu mbay nuyu Aïcha Faye madame Nia euh, chéri Ahmed Nia doon fête dem 4 ans de euh, de de mariage donc xam naa dafa xaw a biddanti moo tax tey ma ma ko fii rek si revue de l'arène bi nuyu sama yaay mère Sow ak Mohamed di nuyu aussi Tandine Cheikh Khadija Diallo di nuyu aussi Dadi. waaw waaw am na solo ah Dadi encore ñu koy nuyuwaat di ko wax ne nag Dadi indil guro gi yàpp xaj bu seddee soof. ndem dañ koy lekk andil guro gi di nuyu ñi ñuy suivre lépp à travers le monde fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar xam nga ñi ñuy suivre ñëpp di nuyu waa Pikine Parcelles Guédiawaye sama yaay xam nga maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama yaay jooju ca géejawaay maa ngi koy nuyu di nuyu sa lébu séri Talla Ndiaye xam nga di nuyu waaw Talla Modem Talla Modem Ndiaye sax laay wax Birame ñi ngi maa ngi koy nuyu di nuyu xam nga Mansour ñoom yàgg Ousmane xam nga di nuyu waa Leewtoo yëpp Sahara Couture tamit duñ ko mën a fàtte Amina ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di nuyu Elas bu Jën Kayre gis nga tey fii moo fi génn borom Sanova Couture doomu ndeyu Jën Kayre mu koy a baax di yëpp ñoom mu ngi leen maa di nuyu di balu ñëpp ah di ñaanal ñëpp xol bu sedd yaram mu sedd tey ci ajuma ji sama série nag du ma ko fàtte teneng waaye tamit di nuyu waat encore une fois rek waa Guédiawaye di ñaanal ñëpp jàmm